tout droit Parcelles Assainies Cerce Pointe a ngi noonu tey la war bëre dimanche le premier janvier deux mille vingt trois mu nekk premier combat ah Cerce bale la génn waaw kenn seera lay ulelir Cerce xaana buntu la mbinna sutaleero la damin beyu la a et sor ce quoi l'enfant chéri de Marloch doomu arrondissement Fimela doomu région de Fatick doomu séeréer waata ngi le géant le grand champion l'enfant chéri de Marloch de Mbalkamak jeno safando o jëm gandun sur ce poids bu équilibre énergie tey di bis bu rëy ci lamb janvier Balla gay ak Boy Niang wara beure ah mbër bu ci beure bo daane dug ci histoire su kuwaat gaa ga ngi nonu dar ko ñaa camera ni di photo ni di laaj ay bagage yëkkati nañ paanu ndox ba soti ko ko te làmb di ay tektal la yëngal na bopp ba puwaat da ngay wis ay affaire sor sa akhir soxa ala dina xaye ñaamu ñis ndeysaan jëlal yi oh li daw na yaram waa koñ bi génn nañ daal di dooleen seen dëkkandoo seen doom seen jarbaat seen rakk jor la ngi noonu gaay dinañ bi mu ngay jat Cuy puat. Ngejat. Wow. Dere la pana leí. Ajambar, dam, dam. duguna ci auto oto ba départ mo dess tout droit arène nationale Sacha Poitt di ndaw bo xamni warna mëna def lu ne ci nit avec frappe amna taay bi amna na gabari bi oto baa ngay départ tout droit arène nationale bàyyi ñëpp sa ginnaaw ñëpp desu di ko ñaanal ndam ndeysaan cey làmb